waa cosaan le mooy séeréeri mbayaar ñoo boole woon seen bopp ngir liggéeyal la ci lislaam en 1979 80 ñu dem Sëñ Mor Mbaye Cissé sàkku tur mu tudd leen Touba Njaareem Sëñ Mor ba mu leen tuddee Touba Njaareem na Sëñ Abdou Lahat moo fi xalif général de Mourides dem leen ci moom ba mbooloom séeréer si mbayaar gépp la woon àndandoo dem Sëñ Abdou Lahat Sëñ Abdou Lahat Mbacké fekk na ko Touba dem Touba bi lal fekk ka fa mu ne lii lu mu ñu ne askanu séeréer ñoo dajaloo te ñëw ci yow ngir ziyaare si la amit tur woo xam ne suñ mor moo ko tudd mu ne anamu ñu jox ko kayit wi mu xool ko suñu ab laaj ci boppam laa wax de moo laaj bi ñu jox ko mu bin ca suufu tur wa ne xaratuhu jàng naa ko wa xabiltuhu euh, nangul naa leen ko wara waradaytuhu gërëmal naa leen ko abdul an mbake fii touba abdul mbake mii ci touba séeréer si ne tekk sant yàlla bu baax ñu ne ko Mbàkke bëgg nañu bés boo xam ne daan ci daje di sant Sëñ Tuubaa mu ne bés bi Sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul bàyyi kon ceen jolof fekk seen maam Mbayaar ñu waroon koo gàttandu bernde ko ganale ko jël leen bés boobee di ko barkeeloo na am day tombe nawet waaye da ngeen jël bés ba bu ngeen seete weer wu leen soob ngeen def ko ca ñaan Sëñ tubaa mbóot mi fekk si leen baytu wooye mooy baytu wooye mooy raamu masiri ila jurbel la daal la sushin la waayanu sirrama fi shiri ma raamu fasiru mawtan ala man wa annahu lépp xawoon wa ikraamu loola moonu may kër xaadimu rasul gi alif kër Sëñ tubaa la alalu yàlla Sëñ tubaa moo ko moom gis ngeen ni mel bëgg na nañu miir bi megoog jamono bëgg nañ fi ay appartement yoo xam ni daarul xuddus daarul minnam kër maam Cheikh Daaru Salaam maanaam ñi nga xamante ne mooy kër Cheikhul Khadim yi euh, fu ci ne bëgg nañ fa loo xamante ne maanaam dañ fi am wàccuwaay yoo xam ne mi ngoog jamono loolu daal euh, bëgg nañu itam mbaar mi ñu gën koo yàqali jumaa ji bëgg nañu ñu gën koo yàqali ndax dafa am mbóot mu ci ne xool nga bunt ci ne ci jumaa ji Sëriñ Moustapha Lakaram mi ak nun ñii ñoo dem Serigne Saliou mbake mu ne dem leen ca jumaa woon Njaareem Abdou Samad Si la ma yor caabi ba bu leen ubbilee ngeen jël bunt yooyee nga xam ne Serigne Touba ci jamonoom le 11 mars 1918 bi Seexul Xadim joxe si Aïssa Dieng liggéey gi ba liggéey ko ba noppi jël leen buntu yooyee yóbbu ko Touba Njaareem barkeeloo ko te xam ne kër googu mooy kër gi de saako suukar ak itam carton warga jox nu barkeeloo ko loolu mooy li nga xamante ne yittewoo nañ ko en tant que nag euh, gaa nag gaa nag vraiment euh, ñi nga xam ne ñoo fi nekk. ñu ngi góorgóorlu ci eh, ci eh, ci lamp yi waaye nag bëgg na nañuy lamp yi gën a gën a leer bëgg na nañu itam mu gën a wàccuwaay waaye bëgg nañu itam képp koo xamante ne yaa ngi ñuy dégg nga xam ne lii daal alalu Sëñ Tuubaa la alalu Sëñ Tuubaa nag ku jël siñ Tuubaa fii la lii mooy ci tënk. ndax ku ne xam na ne Touba Njaareem eh, gox bu yaatu la bu nekk fii ci Diourbel. kon waaye nag mën naa ne làqu gu mu làqu ak ñàkk ay yoon. yu tax mënuta ay yoon yoo xam ne ñàkk na ñàkk gu mu ñàkk ay yoon yu tax ñu mën fa ñëw tax na ba ñu bari mënuñ fi ñëw ñu bari sawaruñ fi ndax gox la boo xam ne tey jii boo génnee dem garage taxi boo fa bëggoon jël taxi tey pour mu ñëw fii bu la laajee nga ne ko Touba Ndiarème la day gàntal ñu li ko waral nag mooy suuf su bari soo xam ne am na fi to jàpp naa ne bu fekkonte ne yàlla dafa ñoo dimbali ba lu mel ni ay tali ñu am ko nee na loolu dikk bi ci wàllu électricité ku ne xam na ne courant bi nagi mbaya yooyu daf fi manqué lool mu ndax lampi mbedd yi euh, daanaka bu timis fi mën naa ne kenn dootul yónnee sa bopp dootoo mën a yónnee sa li ko waral lëndëm goo xam ne am na ko fi ñu di ko dund loolu moo waral ba léegi insécurité boo xam ne tamit am na fi am na fi ndax ñun ñu fi dëkk daanaka mën naa ne bu 22 heures xësee jot bu dee mag ñi yitte boo amoon boo ko doxul ba 22 heures daanaka da nga koy bàyyi bu suba. nee loolu nag bu fekkente ne mag ñi ñoo am jafe-jafe génn 22 heures waxuma laa gone muy yoo xam ne wax dëgg yàlla yu doy la yoo xam ne ñu ngi koy dund fii ci gox bi daal. waaw maire bi tabaat nañu ko. muy koo xam ne vraiment jàmbaar la jàmbaar la am na yéene. mais nag ku ne xam na ne liggéeyu municipalité dafa am fu mu yem ndax lu ci bari loo xam ne maa ngi koy am na ci loo xam ne état moo ko mën. même lu mu amal yéene am na ci loo xam ne mënu ko état bi moo ko mën a jàppale ci yu bare bari moom jàmbaar la wax dëgg yàlla ndax boo xoolee màggal gi fii ñu ko amee fii ñu ko amalee mbaar mii moo ko fi def kër sëñ Tuubaa yi bëri na fi jumtukaay yoo xam ne moo ko def waaye nag taxul mu mën a dajal ndax dafa bari loo xam ne des na wax dëgg lu bari des na def na yéene mais des na lu baree bari loo xam ne ñi ngi koy xaar ci moom ñu ngi koy xaar ci moom euh, falaat nañu ko. Jurbel gépp dañu falaat léegi nag bari na loo xam ne tamit mi ngi koy xaar ci biir gox yi. lu ci mel ni li ma wax léegi wàllu électricité loolu moom war nañ ci dimbali ndax wax dëgg yàlla côté boobu moom dafay tumuranke lu jëm ci wàllu ndox mi tamit dafa xaw a ci gox bi daf fi xaw a ndax euh, li ci gën a doy waar nee na côté yi nga xam ne fa la tane léeg-léeg am façon ndox boo xam ne mën naa duñ ko mën sax utiliser duñ ko mën naan kon loolu gàllankoor la bu ko defee kon wàllu googu ñu ngi ko ci soññ baax di ko ñaan mu gën ci góorgóorlu gën ñu ci jàppale waaye di ñaan état état tamit mu jéem ko accompagner ci loolu dimbali ko bu ko defee euh, population bi yeewoo fi seen dem ak seen dikk ak seen nekkin gën a yemb waaw loolu moom ba tey manqué na fi ndax am nañ lumière mais lumière bi lumière bi doyul wàllum ndox mi it jafe-jafe am nañ ko ndax balaa nga root 4 heures du matin 5 heures du matin loolu ci jigéen te kër ku ne xam na ne góor ñi ñu jóg di root dañuy am problème mu ndox de ak ka am problème mu ndox ndax robinet yi dañuy tëj te bu facture bi ñëwee day cher imaginel nag sa facture di ñëw di cher te yow daanaka balaa ngaa root 4 heures di matin 3 heures du matin 5 heures du matin balaa nga bëri ko sax bala ku boo ko taajee balaa fees robinet yu tëjaat boo nee bu fajaree loo teel teel teel teel a yeewu balaa 6 heures robinet yu tëj nañ léegi nag imaginer robinet di tijji 4 heures du matin bëgg di tëj 6 heures du matin ndox bi nga soxla torop doo ko mën a am muy jafe-jafe boo xamante ni ñun ñu ngi koy dund guddi itam ñu ci bëri duñ bëgg a yónni seen i doom ndax problème mu électricité bi parce que lampe yi doyuñu am na ci boo tourné nii tuuti rek côté yoo xamante ni tey koo fa yónni bu timis jotee du dem ndax lumière bi ñu soxla dëgg-dëgg amu fi waaw loolu daal moom suñu jafe-jafe la. wàllu faju bi itam wax dëgg yàlla am nañ ciy jafe-jafe ndax ñaari poste de santé yi nga xamante ni moo fi nekk xaw nañoo sori benn bi mu ngi ci route nationale bi Medina Toul bi ci des mu ngi ci tali bu bees bële Touba Ndiarène fële kër gu mag. ñu koy wax tali clinique Kotaan mu nekk Kër Sëñ Bay Sarr ak clinique gu yooyu mu ne Medina fii dig bi bii wax dëgg yàlla war nañ fee mën a am poste de santé te suñu terrain valable na mais pour mu taxaw daal problème la te loolu lu war a mën a yomb la ndax Touba Njaareem rawatina fii fii ñu naan Touba Njaareem di Njuufeen soxla nañ ko ndax gox bu yaatu la bu yaatoo yaatu boo xamante ne nii dañoo war a mën a am poste de santé spécial boo xamante ne nii fii la war a nekk ndaxte da ngay xool tey yow ñun bu guddee pour nga am taxi problème la léegi nit dina feebar ba a faju léegi yow boo amulee taxi poste de santé bi sori la day metti lool loolu it ñu ngi koy dund da ngay gis ñaare sax nit day amee doom biir këram mu nekk risque boo xamante ne nii accouchement à domicile ku ne xam ne ne risque la te ñaare problème mu taxi dañ koy am ci loolu ndax guddi bu heure boobu koo yee du nangoo jóg ndax lëndëm gi mu lënd xëy mi ba tey wàllu xëy mi des na ndax li tax wàllu xëy mi des na mooy fii li nga xam ne nii ñoo fi jot a am as xëy tuuti nekkul xëy moo xamante ne nii nekkul xëy ma nga xam ne nii daj na jigéen ñëpp li fi jot am ak muy mbale mi nga xamante ne nii Pape Modou Fall dëgg moo wër moom moo ko fi defoon moo noonu laa moom laa fi gis loo xam ne moo fi am ci xëyum jigéen ñi te du ñëpp ndaxte daanu dajut suuf am na ci ñoo xam ne jotiwuñ ci te jigéen ñi macha allah bari nañ te ay jàmbaar lañ ay liggéeykat lañ fajar lañuy ñuy di dem di liggéey suñu maire yi jàmbaar lañ ay liggéeykat lañ fajar la ñuy jóg dem de liggéey waaw kon xëy mi moom wax dëgg yàlla ba tey xaw naa sooxe ba tey